عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق ba xam ne indi defal ci la xam ne bàyyi moom rek la ñu amal ñu boobu nag la bàyyi taxaw ne taxaw rabbi an yow ñu wax xaj yi rek ñaan naa yàlla sama njub wii mu daj àdduna. ñun boobu nag moo wala gaal pour mu lii yëpp moom la rek bàyyi fii wër bët ko foo mën a fekk ak lu mën a mel saalum saalum rek koy mën a wax ma leen bàyyi yaatu yooyu dañ bàyyi yaatu yooyu léegi sax ci ci sa bàyyi moom ma leen bàyyi bu yaatu boobu alaaj Ibrahima ne saalum saalum bàyyi tamit borom photo bii nii moom laa wax kooku jëmam ci ci boppam mooy tey Cheikh Tidiane nee na boo jubee sax na nga xam ne du ci yow ci sa sëriñ si dugub sëriñ bi ci gën moo tax kon bu ñu dajee ne jërëjëf bàyyi ci seen jub bi bu ñu dajee ba tey bu ko dee jërëjëfee bàyyi bi daal dul dañu bëgg a seede ci boobu moom ñaanoon yàlla ñu boobu wala ñaan na ba àcc ci tey loolu mooy diine bu wér gi loolu mooy tarixa moo tax Cheikh Tidiane mu ne ngir moomu fu mu dem ba topp sa xol bi bu ko noppee génnal ci biir yàlla man wajaba sawaaba man man wajaba sawaaba wajaba ale bi li na ko Cheikh Tidiane mu ne yantafi na bi xayri pour yow ñun njëriñ la Cheikh dalika almuradul aham loolu moo tax kuy ut sëriñ njëg woowu ngay ut wal maqsuud te mooy tekk sens bi ci tarixa boobu la loolu moo ñu wax jërëjëf jërëjëf. moom nag ci boppam moo waxoon ne su ma demee ba àdduna bi toll fii tey man danaa génnaat te mu su fee jógee woon fan la ndaw ñu di teg seen tànk dem ci àll bi yëpp ba tey alaaj Ibrahima Ñas rek mooy feeñ tey ci tur yu bëri ak ci melo yu bëri ak ci tur yu bëri. la ko maa amaanaan rek man rek laay wax maa bi yow daf ko gént adduna bi tukki ñuy julli benn raak adduna bi yëpp sàppe ñuy julli benn على المنار بقربانها وبقيت باسمك ووصفك ودعني في المكان الذي يليك شوف كيف السرين بلي ما تشتغل معناها يوم لا يعمل تكتسر القربان mu ne ñu woowee na sa tur ak sa melo maa ngi lay ñaan nga teg nga jegal ma sa bopp maa ngi lay ñaan nga jegal mbiram nag àdduna ak àllaaxira di ko xam àdduna di ko waaye noonu rek ma daje ko kooku nag mooy El Hadj Ibrahima Niass bu yàlla dimbalee ñu jox ci kaw ci ci zumraam ci mbooloo mu ne kii lii ma gis mooy xol laa yabqa ala kulli zi qalbin yi nga xamante ne ñu ngi leen sant la ki si jiitu mooy Thierno Aliou mii nga xamante ne mu ngi jóge ba Fuuta jeex tàkk ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass li muy def yëpp ci bëgg bàyyi ko am ci ndigal koo xamante ne sëriñ ma génn àdduna xool taalibe ni mu yem mu ne leen man sama taalibe bii moom moo doy sama xalifa kon def na damay defoon am na ay doom doom yi jàng nañ sama xalifa sama ginnaaw ak sama njaboot loolu lu ko dëggal xam nga lan bi loolu jeexee Cheikh Mouhamadou Amine la xalifa bi jox ijaaza ne ko yóbbul ñu ko ba Fuuta nga sampal ñu ca baax jox ko suñu yóbbal kon tey bu ñu amee gan bu yem nii tey bu ñu ba Fuuta alhamdulilah bu ko nekkoon toog yónnee waaye ñëw gi mu ñëw waaye topp waaye rek rek la ñu ko. heure bu ma déggee def naa ko dara ci moom laa jëm kon bu fi ñëwee ñëpp war nañoo xam ci bi ñëw xam la borom ijaaba la li ñuy def yëpp ci ma xam Cheikh Ibrahima Sall ci numéro sérieux ñi si des si ñëpp ñu jógee ñu dina bàyyi ñëpp ñëpp Medina Baye lañ suñu nekkee Dakar tamit Medina lañ jógee dëkk boobu nga xamante ne moom la waa ji waxoon ne xëfir ko lagal medinata fa jamiu ma taxwa fi zaati mar'a mu ne yow bi sa xaatir di wër maa xam ne yoo xam yaa xam looy ut ci àdduna zahiran wa baatinan mu ne mu ne xëfir ko lagal medinata fa jamiu ma taxwa fi zaati mar'a yow mi xaatir ba sa xel mi dugg medina bàyyi taxawal fii na bàyyi quartier la koñ te bàyyi na si tukki na ba sori ne maa ngi jëm kaw la fa àdduna bi yëpp te xam ngeen ne kaw la café yi ci ginnaaw wala ko kàmbaan ci ginnaaw lii ne ñu ci ginnaaw Côte d'Ivoire ak yëpp ci ginnaaw lu tax ñu bàyyi na kaw la fi àdduna bi yëpp loolu wax bas wala da ngay wiir nga demee ne nga demee fële am fii si ñoom seen biir ñaar muy Mouhamadou Amin xoolal xoolal maa ngi sëgg sëggal sëggal nga dem boo mënee sëgg baax ñu ñëw teewal seen i jëmm teewal seen bopp ci seen i taal muy doomi Cheikh Mouhamadou Lamine ak doomu Cheikh Mouhamadou Nazir moo doon si kàddu muy nag léegi fàttali yi di ñaari doomi baay yoo xamante ay doomi baay waaye tam ay taalibe la baaxul ak seen i toogal maa la garanti ñëpp moo tax ñu toog rek bëggul dara te lu waay yu ko dajee moom xam meew la ci Mawlana Cheikh Ibrahim Nasir moo ma nettali ne bés bés boobu laa ko wax ne ko tëb ñu ñuy tëb mu ne ma sëriñ bi daf ko mos a wax ne Nasir fekk yaa ngi jàpp ci sama diggante école bi ak sama jumaa ji lu topp sa xol yàlla mooy moom aw si man soxla lenn lu dul jàmm jàngal ca école bi ak juma lu topp sama xol yàlla bàyyi moom mbir bi lu ko nekk la koy jox maa ngi jox nga ci benn jigéen xarit buy tar bi ma ne ko nii lañ ma ko joxee waaye waaye man ni mën na ñëw bu la boolee nga àgg nit sax jéggi na ko di soxla àgg lekk na nit àgg nit wuy na ko téléphone àgg jàngaloo na nit alxuraan àgg xool na nit bëgg mu àgg mu àgg nee na loolu fay du bi la di si diggante bi parce que léegi séeru bi la yi ñu xam xabaar man lañ man lañ yuuti way ci terbesa may joxe may xaj ñu ma def loolu mooy alal bi Kabir bàyyi moom nag ci boppam da lay déglu ñun ñi moo ñu boole utal ñu ay ndey yu ñu jur dama ne mu xaddam bàyyi yëpp ay jigéen kenn ku ci nekk nag wen bi ngay nampal sa doom noonu rek lay waaye ñu ñëpp bokk bàyyi waaye kenn ku nekk sa mu xaddam nag benn ngëm-ngëm benn bunt bu ñan la benn peuple mooy asxaabul fayda ci jàng mooy lan mooy la jëfal ilaahi am na Cheikh Tidiane mooy lan mu ne mooy qiyaamu lillaahi lillaahi dinaa ko mën a ane hawa loolu mooy lu toog benn biir lañu am day nga ñun ñëpp benn biir lañu am yàlla rek lañ bëgg benn ngëm-ngëm lañ am mooy laa ilaaha illallaah moom xaaral ma ne ko ma ne woon dafay génn ba génne bu ñu xaaral ma woo ko. bés bi nag li tax ñu mën cee jël temps. waaw waaw fii nii ma woo ko. Cheikh Ibrahima Niass si boppam dafa digoon ay mag mag fay bu dee yéemu na nii ñu am taal bi Cheikh Aziz Cheikh Aziz mu jël courage man de ma sax lu xew damay nelaw heure bu ma nelaw bu ma gën a yeewu heure bi ma ko dee ñaanu ay nit ñaanu ay kilifa. That? Yes. Kiraro Shekare. Dem soirée, dem sortie, dem ci gaa yi nekk. Mu koy ci ak rek yéene. Waaye ma ko ci ak rek ñu foofu ne ma dafa am am ñu ko ñaanu dafa am ñu ko bàyyi ci may. Ñooñu mooy lan muy Cerno Seydou Gaye. mawqif islam parce que dañu daan gan ñi xam ñu xew la pour ñu xam ne mënu ma ci dara mënu ma ci dara nit day àgg sax fekk may neex nit day àgg sax fekk may neex moo la joxee daal day laaj géej ak samay soxla na kilifa yi fi nekkoon fii Gunaas ñi gën a garaaw ci faj bi dëkk ne muy Cerno Asimu Aw ñëpp xam nañ Cerno yaayam muy maamam moo ko nekk ni tarbiya ca na Abdoulaye Sarr dafa fanaawoon fanaawoon ba xamee am dara bi ne mu ne boobu am na géej bu féete wetu kër gi maam Xasan dañuy fóot malaanam méppe ko bu waree ba toll foofu sant baal kenn du ko jox mu naan dañ doon jël ndox mi ko ay comme picc sotti ndox mi ba mu fees si bopp lopp ci garab doo xam kenn xaal yooyu ak ñeneen nekk ci dëkk yi moo tax il faut ngeen xam seen bopp il faut ngeen xam li may def ci ñun paa yooyu nekkoon ci ruq bi kenn xamu leen ñuy nokki di ko sànni ci jaww ji jaww jooju ci bokkoo moom la seen ndey ak seen baay yi doon noyyi daan ko lekk di ko naan dégg nga loolu moo indi tey dégg nga foo tourné rek ñëpp naan ay la barham wa ma barham yéen ñëpp ñëpp naan ay la barham parce que loolu moo fi indi lii moo tax Farga ngi ñëw fekk ma fii ndeysaan dernier jour bi ñu gisee mu ñëw ne ma ko téye ñëw di ma jox addiya te am quatre-vingt-sept quelques années ma ne ko déet sëriñ bi mu ne ma yow laa jox sama addiya mu ne ma yow la ma bisimilah asalaamu aleykum mu jàngal ma ko ci saal bi ñu génnaat ba taxaw fii si naaj bi si oto lamp bii mu xool ma ma xool ko mu ne ma téel mu ne na nga ko téye téye mu ne ma na nga ko téye jox ma ko ñetti yoon jour boobu laa ko mujjee gis. génne 7000 ci si mouchoir bi ne ma àggee bàyyi ba ma la gisee ba léegi yow la su ma demul ba mu ne ma parce que damaa xam ne yéen la ma bàyyi waxoon ñëw ngeen ñun dañuy dem. moo tax nag il faut xale yi xam daayira ñoo xam lan moo tax fuñ toog di tudd màggal isal kiraamu isa ma aysaru zakaru man kaana yaxlufuhu fi manzili xasin bàyyi sax dugg ci xamu Cheikh Tidiane première dugg bi njëkk a Cheikh Tidiane première dugg bi njëkk a dugg ci xamu Cheikh Tidiane bàyyi dafa dugg toog xaal nee na dafa doon mëntu xam lu mu wax su ma ci yàgg jël na ne Cheikh Tidiane jël di jël nee na xaar nga wàcc moom mu wéy ne nettali la waa ji waxoon na isal kiraamu ñu teg ñu isal ma ay saw buñ demee ba jàppandal fekk leen ci seen dund la doon foog ñu fàttali man kaana yàqu foofu ñeneen doon defaral di leen wéttale bañ nekkoon fi man si ñu xasal moo tax nag comme ñun bañ fi nekkee kenn fekk ñu fi moom mu fiy jënd guddi di ñu fekk moom kese baawaat na fa la dëkk mu ne ma ñett jàpp ak nangam nekk naa ko si mu ne si at yu mujj ba ci yàgg ñu dagg courant bi biñ daggee courant bi xaar bu gën di sikar mu ñëw taxaw ma wax bu rëy mu wax bu rëy ñu xam ne xam nga ay doom bi ci biir bi la bokk bés boobu tànku nañ la son ànd ak ñun ba terminé ma ne ko sëriñ bi yemal ma ne maa ko woon koy bi ci la nekk ak ñun ay at yu ngeen sayfiyu si ndigal bu kawe di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey bisimilah ñu nekk lu tuuti rek